asalaamaaleykum mbokk yi teel talaata ñaari fan ci rajab muy weeru ndeyu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett ñaari fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci talaata ji rafet na li ñu ci tere tere ak moom talaata mooy ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca ñaw ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma yiy waral sa yërmande ak yi taxa am sa njéggal allahumma inni asaluka mujibaati rahmatika wa azaima maxfiratik allahumma inni asaluka mujibaati rahmatika wa azaima maxfiratik xadis bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na misaalum aji gëm mi ngi mel ne misaalum yamb yamb du lekk lu dul lu teey te it du génnee lu dul lu teey xadis bi ibnu xabbaan moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam masalul mu'mini masalul naxlati laa taakulu ila tayiba wala tadacu ila tayiba rawahu ibnu xabbaan waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi six heures dix-huit juróom benn waxtu yu tegal fukki simili ak juróom ñett tisbaar treize heures quarante-cinq benn waxtu fukki simili ak juróom takkusaan seize heures quarante-cinq ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom timis dix-neuf heures cinq juróom ñaari waxtu yu tegal juróomi simili gee juróom-ñetti waxtu yi tegal fukki simili ak juróom-benn loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër bu fekkee ne ko Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre yu ne wàññil benn simili soo ko féetee sowwu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre yu yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saalum téeméeri kilomètre yu ne yokkal benn simili jant bi dina fenk 7 heures 31 juróom-ñaari waxtu yi tegal fanweeri simili ak benn di so 19 heures une minute juróom-ñaari waxtu benn simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin